Jungle. bisimilahi mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant Cheikh Ahmad Bamba Xaadimu sol sunu yaakaar teeg ëllëg waaye di ñaanal bu baax a baax sëriñ Cheikh Diaw Mansour sunu sëriñ sunu yaakaar teeg ëllëg suñ borom yàggal ko fi loolu te weral ko ak mboolem rakkam yëpp ak njabootu Baye Serigne Diaw Mansour gépp ak taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare baax ci bis bu màgg bu tedd bi di màggal gi nga xam ne moom lay màggalal Seexul Xadim Cheikh Bamba Xaadimu Rasuul waa kër Baye Serigne Diaw nag am ci taxawaay bu am solo di ko def fii ci këram gi ci Daaru te ku wax màggal nag am pàcc boo ci wax muy organisateurs yi ci njiitul Serigne Mbacke Diop bi nga xam ne moo jiite mboolem organisateurs yi nekk ci kër Baye Serigne Diop Mansour gépp moo ngi leen ci ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara baax di leen jox seen wàccuwaay boobu ba léegi nag euh, ñu ngi doon def ay daje ngir bis bi jag ngir bis bi ne ko sëriñ bi bëgge ñu amee ko noonu dajee nañ fi ay réunion yoo xam ne conféré nañ euh, daayira yi nga xam ne moom la euh, liggéey bi lëkkale ñëpp mooy groupe organisateur yi bi ndajee ñu waxtaan xool li nga xam ne moo amoon problème ci màggalug daaw ga ñu ñu defaraat ko li nga xam ne moom lañ war a yokkaat ñu renforcer ko yokkaat ko bu baax a baax ci njiitul fédération bi nga xam ne ñoo ngi jàppale saa su ne ci liggéey bi lépp lu ñu soxla ñu nekk ca loola lépp lu ñu bëggit ñu taxawu ca loola ba nan ko bëggee ñu amee ko noonu ndax ba bëgg liggéey bi bañ a gala gala foose fenn kon nag loolu wax dëgg yàlla moo tax ñu ñëw ba agsi ci càppandaw li ndax bi nga xamee ne ñu ngi doon réunion di daje def nañ ay commission commission yu am solo yoo xam ne dañ koo taxawal ci biir liggéey bi muy commission ñi nga xam ne danoo nekk ci waañ wi ak commission bi nga xam ne danoo nekk ci baas bi ak commission bi jiite wàllu raxasu mi wa ci wàllu sel yi ak commission bu ne tënk nañ ko ci biir organisateurs yi su ko defee kenn ku ne nekkal ñu foofa ci ci ci mbooloo mi ña cay jëwriñ ñi nag jiite danoo jiital mbooloo mi topp ci seen gannaaw nga xam ne lépp lu leen wax ñu def ko lépp loo xam ne dañ leen koy tere duñ duñ ca nekk waaye mbooloo mi am pas-pas boo xam ne ak pastéef boo xam ne dara doxul seen diggante ak sëriñ bi lu di ko liggéeyal ndax kaddanoo jaayante woon ne aslamtu nafsi ku jaayante moomatoo sa bopp ñun moom ay soldaari man Mansuur Jaw rekk lan saa yu ñu sëñ bi soxlaa daal ñu bàyyi lépp lu jàppoon dem wuyu ji sëriñ bi saa yu sëriñ bi pare ñu ñu delluwaat suñu yitte ndax loolu mooy suñu mooy mooy moo dox suñu diggante ak bi bi loolu amee nag bi nga xamee ne euh, daayira bi nga xam ne moo nekk euh, Touba dafa convoqué daayira yi nekk ci biti ñëpp di dalee daayira euh, Darahman Diaw ak daayira Mox Mox ba ci daayira Jawe ngii jaan daayira yëpp kenn ku ne joxe nga say membre ñu indi ko boole koog membre yi nekk ci Touba daayira yi asalem daayira Tundóodi daayira euh, yëpp rek kenn ku ne indi sa mbooloo ñu boole ko mu nekk benn ñu ñu daal di dajee waxtaan xool li jël liggéey bi doxale ko jëmale ko ci kanam ñu ànd ca loola kon boobu nag ci lañ continuer ndax kenn ku a xam ne nawetu daaw ba daa da màggalu daaw daa nekkoon ci nawet loolu moo waraloon euh, liggéey bi xawoon na métti lool ñu doon taal ay matt ak yooyu yàlla def nag bi ñu xoolee na liggéey bi mën naa demaat ci nawet bi ca la tombe na ne nan xool nun defee ba jënd këriñ ndax ñu taal ay bili loolu lan programme woon yàlla nag suturaal lañu dimbali ñu defal ñu tawféex ba yooyu yëpp ñu ci doon bañ amu ci waaye nag suñ borom def ñu wut ay bili di ko taale liggéey bi yomb rek wax dëgg yàlla bin xëyee ba lee kenn ko ne yaa ngi ca poste ban la tegoon nga nekk ca loola kon daal sëriñ bi foofu la ni euh, ya tënk kàddu yi rek xam ne lépp la taxoon ñu jël Mbàkke Jóob jiital ko ci kanam mbooloo mi lépp leen bëggoon ci moom def nañ ko ndax mbooloo mi jiitaluñ ko pare di ko fakastal waaye moom it jiitaluñ ko pare muy doxeeb sañ-sañ ne ma maa ci ëpp xam wala maa leen raw wala maa leen gën wala leneen lu muy def da koy day ciy diisoog mbooleem ñi nga xam ne moom la nga séq ak liggéey bi kon ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal liggéey bi yàlla na ko suñ borom defal ko ci lu kawe njortam oyofal yan bi ba lépp loo xam ne yéen a liggéey sëriñ bi suñ borom defal ko ci lu kawe njortam ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.